aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakatu yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe yi gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall wal muridina wal muridaati di ñëw fii ci barab bi nga xam ni di barabu Mouhamadou Abdullahi al di taalibe maam Cheikh Ibra Fall di doona yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas def ak leeral ci kémtalaay ci luñ ci xam muy barab bi nga xam ni muy barabu Cheikh Abdoulahi Al mu am ñett jaar-jaar bi ci njëkk ku am garaat ci yàlla la bi ci topp ki jox maam Cheikh a Fall léppam la kon ñu fa yéene see leeral rek lu gàtt rek ngir nit ñi gën a xam njariñam njariñu àddunaam ak njariñu alaaxiraam ndax barab bi ñu toog day barab faju aajo la te képp koo xam ni ñëw nga fi siyaar si ko sa borom dina dimbali àdduna ak alaaxira ndax sama borom defal na ko waaye dañuy wax ni gannaaw moom si Ablaye Yaqin bi muy laataa ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall làmboo na garaat yu baree baree baree bari yii mbiru biir la yii mbiru saayir la yuñ mën a wax mbiru saayir nag mooy lu ñuy teg suñ bët mën koo wax mën koo nettali ci taarix ci lu wér loo xam ni am na ñu ni nag doon na rasulullaay ci ñett walla ci lu ëpp ci melo ci doxin ci jëfin ci baatin ci ak ci saayir ndax avant muy gisanteek maam Cheikh Ibrahima Fall fekkoon na ñu jàppoon ko ab jaam mu ngi mel ni jaam boobu ñu ko jàppoon nekkoon na fa ay at nekk fa waaye bu mësaana sàmmi wax nañ ni kaka jàppoon daa taamu daa yoroon ay xar ak ay jur waaye bu mësaana sàmmi bu dee noor la xar yi dañuy suur ndax ñax day sax léegi xar lekk ba suur gannaaw loolu ko jàppoon taamu ko ca la nga xam ni mooy sàmmi ba wàlliwu yàlla bu màgg moo dugg xalwa sama boroom xamal na ko dañoo jàpp koo xam ne daa takk garaatu rasulullahi te buñ ko bàyyiwul bekkoor gannaaw bi waxee loolu ñu wan ko wàllu bi ci la xëy dem ca moom na ko tëjal moom mbooleem ndongo boo yor ba ma ñëw keroog ba mu ko tëjee bi mu ñëwee ibbi na leen waaye gisul Mouhamadou Abdoulahi ba mu ko laajee la ne ko ah, fàtte woon naa ni am na ko sàmmi mu nag ko bi ci Abdoulahi yaqin di dugg si ci la bëgg a fóon jëbi par mu mbas ko mu ni ko kii de àttanoo ko loo ko ko mën a jox ci àddiyee nga jox ko te nga yewi ko keroog la ko yewi jox ko fasu naaru góor mu dem kër jiili mbay fala nekk defoo na benn usuwaar ndax koo xam ni borom këram daa jote woon ak moom ci guddi gi di dem mu dajee ko moom na ko demal tuubal sa borom kër te nga rey ab bëy bu ne sa kër nga defar ko cere yàpp jox ko mu reer soxna si it bi mu demee def loolu borom këram daan ne ko lii de du sa xel mu ne ko dama romb góor gu màgg mu tigtal mu ko ma ñëw def ko mu dem jël ko indi ko ci këram muy kër Jili Mbay moom ñuy dégg ba mu ñëwee rek ba mu ko bëggee boole ay nit it dani ko man ay malaaka it dañ may siyaar si du ma tëdd ay nit gannaaw boobu nag lay doxantu doxantu gu wér ba dajeeg maam Cheikh Ibrahima Fall bi duggee kër maam Cheikh Fall fekkoon na lu jiitu loolu maam Cheikh ci njaareem yónni woon na benn ndongo na ko wutal ma ndox ndongo la dem ca teen ba fekk fa baak fekk fa goj mu xamal ko na ko kat Fall man de teen ba amul baak amul goj ci la Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Yakhine dugg si mu ni ko ndongo li wutal li ma ndox ba mu demee indi ko ndox ca këll ga Cheikh Ibra te këll gi di ci ñaan di ci ñaan def ci lu mel ni cere di ci ñaan di ci ñaan ak diir daal ko fay teg daal fatu bi mu fatoo Cheikh Abdoulaye Yaqin daal di jëlu këll ga naan ko mu ne ko xanaa ku toog fii mu ne ko a ah, doom man a Abdoulahi mu ne ko a ah, Abdoulahi ana li ne woon fii mu ne naan naa ko mu ne ko xanaa bu amoon suukar day mu ëpp. keroog la jébbalu ci maam Cheikh Ibrahima topp ci ay ndigalam gannaaw bi mu nekkee kër maam Cheikh Ibrahima nag nekk ca xidma ba nekk ca xidma ba am bis muy doxantu romb borom Touba xaadim rasul yaakaari jaam ñi fekk mu julli ba sëlmal keroog mu nëkk ba sëriñ bi julli ba sëlmal mu ni ko yow de sa yoon wii de daa yéex xaaral ma boole laa koo xam ni kat. ah moo la gën a gaaw yoon muy maam Cheikh Ibrahima Fall keroog la sëñ Tuubaa jug dugg kër Cheikh Njaareem Cheikh Fall na dipp ci suuf na ko Abdoulaye foo jëlee sama sang bi ñu yegg suuf ne ko Ibra Fall Abdoulaye mii ku la bëgg la dimbali ko ba mu ñetti yoon ci lañ ko yàqin ma yàqin demal kees nag ma ma ñëw keroog la ko maam Cheikh Fall yebal fii ci kees. keroog la ñëwit bim mu ñëwee kees fekk na def na fi ay kéemaan li tax ñu ne nag moo doon rasulullaay mooy wax na ni rasulullaay ay doomi jigéen la am si Abdoulaye Yaqin ay doomi jigéen rek lam gannaaw nag bi loolu amee yëpp ñëwee kees dekkal na fi tal na loxoom ci kër Njaga Mbay biddee wàcc ci ay loxoom loolu lépp Cheikh Rafal si euh, Abdoulaye Yaqin maanaam xiyaas na ko fii ci daaray duniyaa ci kees kon def na it kéemaan gu gën a rëy googu mooy jamono yi nga xam ni day kasere ay bërigo def ci ndox ay yar la dagg yar wu mag bu gudd la dagg bu kasere bërigo ndox ci la koy dàq na wujji leen sëñ Bàmba ci njaareem bërigo du bërëngu ba biir Tuuba dem na fii ci kër Njaga Mbay wax ni lu waay bëgg jàpp a jàppalu ay mbët rey leen daane ku bañ sa mbët raw raw ko xàmme keroog la fëgg mbët yi nag yëpp daane fëx jug daal di dekkiwaat kon loolu it Cheikh Abdoulaye Yakhine def na ko melo yooyu yëpp def na ko tabax na kërit ba mu rafet mu ni rus na ci dëkk te Cheikh Rafal dëkku ci keroog la ko jébbal caabi yi loolu lépp Cheikh Abdoulaye Yakhine def na ko li nga xam ni mooy màggalam gii nga xam ni jéggi na doyo lool waaye gannaaw ci liñ doon wax léegi rek si Cheikh Mouhamadou Abdoulahi liñ ci doon leera léegi rek li tax ñu naan daa am ay saxaaba mooy keroog bi ko sëriñ bi gërëmee indi ko kees keroog la Sëriñ Tuubaa wax ñeenti taalibe ne ne bu leen sol dal boo leen demee ba kees ngeen fekk fu ko naan Abdoulaye Yaqin bu leen teewee ngeen delsi bu leen teewul ngeen doon fa ay saxaaba ñeenti saxaaba yooyu bu ñëwee barab bi ñu toog nañ fekk Cheikh Mouhamadou Abdoulahi waaw fi nañ fekk Cheikh Mouhamadou Abdoulahi Yaqin biñ ko fi fekkee fekk na malaaka yi wàcceel ko ñetti baatu zikrulaa yoo xam ni ci malaaka yi ko jox si abdoulaye yaqin muy haasa mina la haasa ila la laa ilaha illa la amana rasulullah malaaka yi ko indi jox ko si abdoulaye yaqin direct si abdoulaye yaqin ci la ko jox saxaaba yooyu ñu koy sikar gannaaw gi nag li waral màggalam googee mooy bi toogee ba jëmi jamono sama borom xamal ni ko damay wàcce balaa balaa boo xam ni maanaam benn jaam benn jaam buy dox rek du ci mucc benn jaam buy dox rek du ci mucc benn jaam buy dox du ci mucc keroog la si Ablaye yaqin na ko damaa bëgg nga ñaan nga teg ma balaa yooyu yëpp ba jaam yi doxi seen yitte li waral màggal gi loolu ci la bokk waaw ndax dañ koy tënk rek li waral màggal gi loolu ci la bokk ndax lu mel noonu it xewoon na fi ci jamono yële kon ñu nit ñi faaw ñu bàyyi war xel nitu yàlla yi ndax buñ déggee ni nitu yàlla lu mu ñaan sunu borom sunu borom defal ko ko am na lu tax ndax buñ deesoo ci ginnaaw daa mel ni am na tawat bu fi amoon tawat boobu kenn nanguwuloon jël engagement gàdd ko ngir tegoo ko te ñëpp doon fi dee te ku ne xam ne tawat boobu lim yóbbu woon yi kon yàlla dogal na bi loolu xewee ci Cheikh Abdoulaye Yakhine jamono yàlla di wàcce balaa Cheikh Abdoulaye Yakhine ko teg ma ko te nga bàyyi jaam yi doxi seen yitte keroog ci barab bii ñu toog fi la duggee xalwa fi la ko feebar bi dale ba at mi dellusiwaat sun boroom moo ko xamal ne ko nag boo wootee ku ñëw wuy si man yàlla dinaa la gërëm ku la gàntalit man yàlla dinaa ko xarab daane ku romb bu ëllëg yomal xayaamee danañ ko romb kon barab bi képp koo xam ne yaa ngi dox di ko romb te doxaw fi yara ki teggin bu ëllëgee jàppal ne bu sëriñ bi céré du la sedd ndax booy seetit lu gàtt da ci am mooy boo wëree àdduna ba mu daj Sénégal ba mu daj boo ko doon wër ku tëdd ci diggu yoon ci Cheikh Mouhamadou Abdoulaye nga koy gisee ku ay jigéen dond te lépp di wàlliw ci Cheikh Abdoulaye ya nga dégg waaye beneen bi ci des koo fi jiin yonente bi ku dul Cheikh Abdoulaye yaqin ñu la <laughs> ndax laa xal xamis la woo yàlla dootu sàkku mel ni Seydina Muhammad kon barab boo dem gis naa fenn Seydina Muhammad ku dul Cheikh Abdoulaye yaqin defe naa ne yat dina ay yat dina la sàppi kon boo nee Seydina Muhammad mooy abla yaqin lu tax ngay am jàmm day dëgg rek ndax barab boo ko wax. ñu may la jàmm waaye feneen foo ko uxut nga jiñ ko keneen ku du Cheikh Ablaye yaqin defe naa ne di nga récc sa àdduna ndax yàlla dootu bind ku mel ni Seyduna Muhammad kon moom bu toogee ni man may max maay maxdiwu rasulullahi te yàlla wax ni max diwu dootul wàccati kon loolu kemaan la ci biir kéemaan waaye loolu lépp dañ koy sant Sëñ Tuubaa Xaadim Rasul loolu lépp Sëñ Tuubaa ko waral ndax sëriñ bi. gannaaw bi mu jógee di régal résulaay mboolem lu yàlla gërëm daa toppaat ci ginnaawam moom Sëñ te wax ni Rasulullaay moo sàkkalu Sëñ Tuubaa liggéey la ko kon liggéey boobu war naa am signature liggéey boobu war naa am signature bu rëy bu mag signature bi nag mooy Cheikh Mouhamadou Abdoulaye Yakhine bi mujjug jamono ñëw a toppaat ci gannaaw maam Serafal te lépp waralu ko loolu mbaaxu borom tubaa kon loolu lépp dañ ñun. dañ cee war a santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax waaw ndax soona say batam yi ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax ku ne dégg na mbaaxam ku ne dégg na sellam ku ne dégg na màggaayam te moo fi togal Cheikh Abdoulahi ay dara di maxdiwu rasulillahi sallallahu alayhi waaye loolu lépp rek dañ koo jëlaat tegaat ko ci mbaaxu borom tubaa ak maam Cheikh Raye ndax liggéey bi liggéey sëñ Tuubaa bi toll na foo xam ni nit mënatu koo xiyaas xel mënatu koo xalaat lu dul loo ci wax lu mu rëy rëy rëy nga gis ko la ci wax lu gën a ëpp loolu lu gën a ëpp loolu waaw lu gën a gën a ëpp lépp lu mu daan joxe moom ci àddiyee toll na ci lim boo xam ni dina takk lool moom si Ablaay Yaqiin mos sa joxe lu ndaw daana joxe fukki naaru góor ak ñaar baax ni sax tegoon na ci doomam bu ñaan soxna màgget nga xam ni noonu la daan joxe addiye kon kooku yeggoon na fu jéggi doyo mooy li ma wax léegi rek kéemaan gu ne wàcc na waaye loolu lépp li tax mu def ko rek mbaaxu borom Tuubaa la waaw diggante maam Cheikh Ibra Fall loolu rek la jëfee tey boo demee ci sëñ Moussa Ka dani làmbi diine Abdoulaye yàqi na ko tëj waaw ndax mooy rasulullaay keneen ku mel ni moom dootul wàccaat na may rasulullaay waaw waaye mooy ni ko waxee léegi rek yàlla suñ borom subhaana wa taala moo dogal gaayam yu baax yi def ci lim def ci ñoom waaye sëriñ bi moom daanaka bi mu jógee ngir liggéeyal yàlla mbooleem wàlli bu am ngërëmal yàlla toppaat na ci gannaaw sëñ baax loolu moom faaw ñu xam ko képp kuñ fi tudd rek mbaaxuk Sëñ Tuubaa moo tax ñu lay tudd bu loon mbaaxuk Sëñ Tuubaa moom kenn dootu tudd waaw Sëñ moo doon koo xam ni liggéey Rasulullaay te kenn gungewu ko Sëñ Tuubaa moo liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko te kenn gungewu ko loolu moom Sëñ Tuubaa rek ko ko def moo tax ba lu yàlla yàlla daal bu la gërëmee lépp lu yàlla gërëm rek day ànd ak yow faw ñu xam loolu nag waaw faaw ñu xam loolu liñ ci wax nag bariwul ngir gën a fonkaat barab bii rek te xam ni li ñuy wax lu wér la te fi ñu ko jëlee lu wér la barab bi mooy barab bi nga xam ni wax nañ ni mooy barabu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam waaw ndax yàlla nag bind na lu ne te ak ruu moom ndax jëmm moom yàpp yaram jëmm kola alin dinañ ko dugal ci biir suuf mais ruux ruux kenn gisu ko ba kay denc ruux googu nag yàlla mën na koo sampaat ci beneen jëmm muy dox di wax di def na mu daan defe te doo ko xam ba saa di taxaw waaw kon faaw ñu am yaqin nag mooy lu ñu gëm yaqin mooy ku gëm ku amul yaqin moom mënoo gëm dara ci yàlla balaa ngaa géej yàlla da ngay am yaqin ci yàlla ba noppi gëm gu wéer doog a ñëw waaw loolu la yaqin di tekki kon turam ñu ni mooy Abdallahi yaqin waaye niñ koy waxee rek gisuñu baayam amul photo gisuñu ndaayam wax nañu taxawaayam sutoon na lu tolloog 3 mètres kàttanam foo ko nattoon wees na fa meloom foo ko nattoon nu wees na fa bu mësaan na tëll cin ñu bari dañ koy féete ginnaaw ngir kàttan na mu toloon nit ku mel noonu jàppoon nañu yàlla dooru sàkk ko amee kàttan noonu ak ko amee doole noonu kon loolu lépp lépp mbaaxu suñ borom la waaye lépp sëñ la sëñ mi jóg sëñ Tuubaa ba mu jugee rek ba sëñ Tuubaa jugee rek Ahmadou Khadim la mboolem lu yàlla gërëm rek jóg ndax xam na ni kiy jóg borom pas-pas la boo xam ni borom pas-pas la boo xam lim jóg ngir Rasulullaay faaw mu am ko te bu ko amee yàlla jox ko lépp. kon suñ Tuubaa la yàlla jox léppam moo tax képp ko amati ngërëm ci yàlla rek képp koo xam ne am nga ngërëm ci yàlla rek suñ Tuubaa ngay topp képp ko weddi suñ Tuubaa rek amoo ngërëm képp ku tontu suñ Tuubaa amoo ngërëm amoo ngërëm barsàq amoo ngërëm yomal xeyam amoo ngërëm àdduna képp koo dégg na topp na suñ Tuubaa ni war a topp suñ Tuubaa jàppal ni ko am ngërëm la ndax ñi topp suñ Tuubaa ñëpp dañoo am ngërëm fa yàlla ba pare bàyyi loolu ñu am ñëw toppal li suñ di woote buñ ko toppee mën nañ cee wax lu xóot lu baatine mais dañuy bañ a dugg foo xam ni am na ñoo seen xel yëggu fa waaye sëriñ bi moom sa borom subhaana wa moo ko programmeel boppam comme ni mu programmé rasulullah yi waaw sëñ comme ni yàlla programmé rasulullah noonu nañ programmé sëñ Tuubaa sëñ yàlla sàkkoon na ko lu jiitu muy sàkk ay aadama ak awa lu jiitu asamaan ak suuf kon mbir yi xewewul àdduna fa mu xewe booba dara amut te loolu lépp ci coobare yi sunu borom subhaanahu wa waaye gannaaw ba mu jógee moom ngir rëgal liggéey rasulullaahi rek lañuy am ngërëm a rasulullaahi ñëpp toppaat ci gannaaw ba ci yonent yi ngay dégg toppaat nañ ci gannaaw toppaat nañ ci gannaaw Sëñ mën nañ cee leeral yu baree baree baree bari mooy li ñu wax rek daa am loo xam làmmiñ di ko laal ndax euh, Cheikh Ibra Fall sëñ Issa Dienne mës na ñëw ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñoo jébbalu ci moom ñëw di ko siyaar si <laughs> waaye bu mu ñëwee daa am koo xam ne daa jébbalu ci Cheikh Issa na waaye daanaka da daan muur kanam gi rek daanaka nanguwul a siggi ba nit ñi xool kara kanam gi keroog bu mu ñëwee kër maam Cheikh di ko laaj ndongo yi naan kaa doom ki moy kan mu ne ko moy diw ba mu yegg ci kooku nag maam Cheikh. daana ko kii mooy kan mun ko mooy diw mun ko daa nëbb boppam na ne yëlbët xool la keroog bi mu dindee kaala gi mu muuru woon na yëlbët karam gi yëpp daa doon yonti yàlla Yuusuf nga mu xamal ne ko kii daa ñëwoon di barkeelu ci liggéey waaye ab yonenti la kon yooyu yëpp xew na ci yoonu murit te lu wér la nga xam ni Sëñ daal kenn la waaye borom barab biit it nañu xam ne ko am ngërëm la ngërëma ko bàyyi fii ngërëm nag mooy lii xam ñu bari dañ naan diw am na ngërëm. laa ilaaha illallah rabbana laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal Mustafa laa ilaaha illallah allahu laa ilaaha illallah فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فال فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله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 la ilaha illallah la rasulullah la ilaha illallah hazam di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàgg fi lool te ànd ak wér Amdi Modou Mbenda yàgg fi lool te ànd ak ñu jékku ndigal te jékku njël ci darajay Cheikh Modou Moussa barkab Cheikh Ibra di leen balwaaq di di ziyaare waa xidma ñu ngi leen di bu baax a baax xam ne lii ñu def lu kawe la comme sa waay ni mu ko waxoon rek si sëñ Abdoulahi Yaqiin ndax lépp day nekkaat si sëriñ bi rek ndax sëñ Tuubaa moo toll noonu ndax damay wax ni Seexuna Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul ki nga xam ne képp ko am jàmm moom moo tax nga am jàmm yemut ak dara képp ku nekk si biiram tamit sëriñ bi moola tànn ndax dañuy wax ne yow ma arastu bi rabbikum xaalu balee googu noonu te yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk koo wax bi yonent bi tànnee dañoo ni Sëriñ Tuubaa daa tànnaat si lu bi tànn kon képp koo xam ne rek bokk nga si rek sëriñ bi moo la si boole kon nañ gën a santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax baax Cees nag suñ borom dina defal tawféex ndax suñ Abdoulaye Yaqin mii nii ku nekk dégg na ay mbiram ndax sama baay bii nii toog ci suñ ginnaaw moo wax ni bu daan dox doo gis takk ndeer bi waaye bu tegee tànkam ci suuf tamit du maake te weñ du ko takk yonent bi nag sallallahu salaam daa ndax nagam malakal mawti bu doon ay junniy junniy nit di faatu tamit kenn ku nekk dina la taawu maam sëru maam nocc ko kon loolu mbirum suñ borom la subhanahu wa taala waaye ñun nañ war a gën a santaatee yàlla ñun murid yi am gi nga xam ne suñ borom dogal na may ñu Serigne Touba muy jox ñu Serigne Touba ñun waa Sénégal ñu waasee sant nag yàlla bu baax ndax Serigne bi moom kennam gi kenn ku nekk xam nga ko waaye nag lan mooy kenn nam gi mooy lim jëfal yàlla kenn mënu koo kenn masu koo jëfal yàlla subhanahu wa taala misaal gi dinaa si joxe lu ndaw bi muy ñaan sa faw zeyni fa mu toogoon kenn fekk ko fa kuy wax amiin ku dul suñ borom nangul ko te bi mu demaatee si géej gi bay ñëw ba muy ñaanaat suñ borom tamit yow suñ borom na nga jéggal mbooleem sama xeet kenn fekk ko fa kon loolu war na tax ñu gën a santaat suñ borom subhanahu wa taala ñaan si suñ borom tamit mi nga xam ni mooy moo ñu bind moo ñu moom ñu ñaan ta xal Bachir yàgg fi lool te wér ndax ku maake jamonoom la kenn ku nekk xam na ni jamono jii nii bi fi corona di dugg si kenn ku nekk dégg nga muy wax kalimatullahi wala yaa gi bu mu laal suuf loolu kenn ku nekk gis na ko kenn ku nekk dégg na ko. te tey suñ borom dimbil na ko ba nga xam ne jamono googu noonu téye na ko te yëkkati na kàddu suñ borom gi subxanahu wa taala ba ñëpp xam ne yëkkati na ko. waaye loolu lépp nag ñaanub Serigne Touba kese lay doon ndax suñ Touba moom léppam suñu borom da koo baakeer ndax bu waxee ne baarakari fii xarakaati wa sukkoon rabbi razi xat xaadari kun fayakoon suñ borom mi nga xam ne yëngoom ak daram lépp suñ borom baakeer na ko kon kooku saa su nekk rek lu jamono ñëw rek maam suñ borom di gën a wane Seexuna Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kenn ku nekk xamal ni tamit sëriñ bi bi mu fi nekkee ba dim demee si géej gi ba nim ñibbisee kenn fekk ko si kon nag ñaan googu noonu mu ñaanoon rek ñaan googu la ñuy tàbbi dugg si biir ndax suñu xaalis moom wax na suñu Abdoulaye Yaqin lépp kon jarut woon sax ñu siy wax. waaye ijaan rujuu'i ilaa xawmi sa'aadatana wal tax fi naa yow ma jam xi xalxi niiraana lool rek war na tax maam képp kuy murit maam ak képp kuy jullit rek ni jërëjëfe Serigne Touba ndax jëlee nañ ko njukkal goo xam ne moom borom Touba mënuñu ko koo fay kon nag nañ gën a santaat yàlla bu baax a baax. lii nag dama koy wax ñun ndaw ñi su ñun ñu nekk Touba ndax ñun amaana Cees lañ ne tere bi ñuy wax xidmatul xidma maanaam ñëw ba fii suuf soosu doon suuf su sell suuf su baakeer suuf soo xam ne maam jaamu bi yàlla bu yàlla gërëm moo fa tëdd te moonte jàmm rek buñ ko amee mooma moom seexu naa Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul kenn boolewul sa bopp si sëriñ Touba Serigne Touba moo la boole si boppam kon Sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba nañ koy déglu te xam ne képp ku toog jotaayu sëriñ Touba bokkut ak ku ko toogut ndax kii sëriñ Touba di digal ak di ko wax defal kooku mooy Sëñ Muntaxa kon sama mbokki murid yi su suñun tànk yi nañ gën a waggaraat Touba te xam li fi yàlla def. ndax tamit nit ki loo jege jege jege te xamoo li la yàlla defal sori ko te xam ko du koy gën. fuuf ba tax ku ko topp ak nam ko santaanee nam ko defee àjjana mooy sa kër suñ borom nag subhaanahu wa taala si yaatoom googu noonu si la yaatalee Serigne Touba ba nga xam ne luy jamono di gën di dem mbiram di mel ni jant. kon ñu ngi siy santaat yàlla bu baax a baax di wàcc foofu suñuy kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.